teggi tuuma du ragal madame Mbacke Mariama Ndiaye moom mi nga xam ne moo jiite SEDAF bu Mbacke indi ay leeral ci tuuma yi nga xam ne moom la jigéenu APR ñenn ci ñoom tegoon ci kawam ñeel financement yi mu wax ne kon lanu ko santoon képp la def. wax naa leen ne ministre la femme bi mu ñëwee di financé département Mbacke la njëkk a financé ba ngeen sañ seel ko toog mu financé leen yéen ñëpp auteur 160 million la joxe 160 millions maanaam téeméeri millions mu ko mais financement la woon ku leb da ngay fay mu am nag ñu jàmbaar lool maa pour sant la commune de Taïf waa Taïf zéro faute ñoom lañ leen jox dañ koo fay ba matal mais jigéen département Mbacké ba léegi waa Touba ak Mbacké am ministère de la femme moo def mais tax na ñu ni appui yi premier critère mooy ku amoon borteloo te fayoo bokkoo ñooñu dañ leen a éliminé d'office kon nag ñooñu bokkuñu ndax lebal nañ leen fayuñu te am na deux ans beneen bi mu ni nañ ko jox ñi nga xam ni dañ doon liggéey moo xam ne bu ñu jógee dina leen fekk seen place ku ci mel ni Maguette Badiane mais dama bàyyi ma fen dañ koy tànn fekkewu ko ku dem mi seeti na ko place la ko fekk. muy salon de couture yi maanaam ko am bërëbu liggéeyukaay mais commerce bokku ci jënd ak jaay bokku ci ki loolu la ñu ciblé bi ñuy ciblé defar mu yomb lool ndax laaj ñu benn dossier tey damay profité wax ni financement yi du pour groupement war c'est individuel muy financement yu neex nag appui yu neex yu ko président sant mu def ko jigéen ñi maanaam dañ leen jox téeméeri junni may la juróom fukk yi <laughs> juróom fukki yi ngay fay te amul benn intérêt may la battement ñetti weer nga sa commencé fay loolu ban ministère de la kan moo ko mës a def ban ministère ko fi mës a def. benn président moo ko def. ban a def. léegi ñu jógee ci loolu mu ñëwal fi boppam ni nag ubbi na ubbi jigéen ñi ñi fi toog ñu bëri jot seen financement ñu ñu woo téléphone. ñi ñu woo téléphone yu bëri dem nañu ubbi seen bopp seen compte defe naa boo leen ci jotul suba dinañ jot gannaaw suba seen xaalis. te la mu bëggoon la mu bëggoon dafa bëggoon banque bi déplacé wu ñëw mais tabaski bi moo tax kon kooku mi ngi jàppale jigéen ñi. léegi nag coow lan moo ko waral ciblage bi ñu pare ba tànn ba tànn ba pare dañoo dem ci préfet toog ak moom ak sous préfet yi. avec le représentant des maires avec les services techniques à savoir le développement communautaire le service de l'élevage le service du commerce et le service de chef des renseignements généraux pour rendre compte au niveau national kon ñu je ñuy def dara lu proposition je jox ko pour valider parce que moi, je valider mu maire est souligné le quota bi nga jox Touba ëpp na nañ ko wàññi yokkal waa monde rural bi wàññi waa Mbacké yokkal waa monde rural bi mais ñun ay kilifa la ñu am administration la ñu nekk dañu exécuter dañuy exécuter c'est ce qu'on a fait ba 45 la ñu mujj jox Touba jox arrondissement de Kayel jox arrondissement de Taïf lépp nag sur la supervision des sous-préfets ñoom ñoo defar seen liste yónnee ma ko ñu valider ko. liste boobu moo dem Dakar ñu delloo siwaat ma ko ci loolu lañuy ñu yónnee ko banque ba ñu commencé woo nit ñi defe naa loolu leer na. li ñeel jigéen ñoo ñooñu nga xam ne ñoo doon sàkku ci président Macky sàll mu teggi ko ci bopp SEDAF moom madame Mbacke Mariama Ndiaye mu wax ne moo ne kenn si ñoom amul lu mu war a wax. mu am lu fi xew démb démb moo am lu fi xew ay femmes yu manifesté pour lan mais ñaar ñi ngeen gis si kanam ku ne am nga ci financement yi ba du yóbbu ñaar ñi njëkk a jël parole ku ne am nga ci financement yi ba ubbi jël ubbi ba ubbi seen compte ña nekk ca gannaaw nag ñu gis leen xam leen dañoo leb ci 700000 yi critères yi ñoom ci lañ bokk fayuñu bor du am rakk nañu waxante dëgg may wax ak nañ dellusiwaat xel yi ministre de la femme wax na ko ba mu demee Kayel la mu wax duma ko del duma si dellusiwaat wax na ko démb ba mu demee Kayel nañu fay bor yi ñu amul woon am di wax rek nag ni ñoom gënuñu ñu fi toog te amuñu financement maa ngi jël benn exemple rek laay jël kii ñuy wax Daba Macky bañ na ko bu ñu nee Daba Macky président Macky Sall ko nit ñi xamee amu ci financement yi ñu fayul amu ci financement yi kon uyu le problème ku jàppale président Macky Sall da ngay nangoo ñàkk jox ñeneen ñi mais ñoo nekkoon ci parti bi ñooy am il faut que sa cesse il faut que ça cesse Ndeye Saly Diop Dieng néew ma benn ministre baaxul mais dañ cee yeex a jot ñun le ministre Ndèye Saly Diop Dieng ñun waa département Mbacké dañ cee yeex a jot ndax dama cee xam dara en tant que coordinatrice du SEDAF de Mbacké mais en tant que responsable politique APR moom ngàcce ngaa laa ma la ko président Macky Sall di sant dina ko def ba def lu mu mënul ñun nag kenn xamuñu ci violence dañu waxoon rek dañu expliquer comprendre dinaa leen wax na répartition yi wax naa leen ko amul benn département bu nekk benn commune bu nekk ci département Mbacké te jotoo appui